wal madadi ahlan wa sahlan wa la bila asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi siiwul seen site internet bi di 24 actu yi comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk ci naafilay weeru koor wi tey nag ñu dikkal leen ci guddig ñaar fukkeel gi ak benn ñeenti rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon lexlaas di xul huwallahu ahad ñaar fukki yoon ñu baamtuwaat ko ñeenti rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon lexlaas di xul huwallahu ahad ñaar fukki yoon ñeenti rakan nag ñaari sëlmal lay doon ñaari rakan yoo julli daal di sëlmal ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci la jàpp koor gi di 5 heures 18 maanaam juróom juróomi waxtu ci fajar bu toftalee fukki ak juróom ñaar ñi ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. riwal madadi